askanu Sénégal nuyooti nañ leen dinañ ñaanal jàmm waaye nag ñu ngi ñaanal jàmm képp koo xam ne toog nga sant nekk ci mim réew wala nga nekk à l'international ndax nee naa la kenn du yéen ci mim réew waaye nag ñu jëm ci bis bu rëy muy un grand tour de famille ñu dippee ko Top Family International. nee naa la première édition bi c'était à Thiarène ca Fouta deuxième édition bi war xoox ca Jolof waaye troisième édition 2022 bii fii lay amee à Dakar ca Padoa muy am. le 24 25 décembre à Padoua ah mu nar a nekk jour bu rëy waaye nag jour bu spécial te neex. toobeen nuy naa leen sant toob du tànneef ndogal la bu neex sunu borom alhamdulilahi bi mu ñu santalee toob noo sant nga di toob foo bokk toobeen toob di benn toob toob di askan xam sa bopp ci jàmm yàlla la bokk. waaye Adja Xajatu Top la coordonnatrice daf ma woo ba ma ñëw mu ne ma ay jije xanaa monsieur Alassane Top le président de Top Family International waxu la ñan la ñu dara jaale bis bi ma ne ko ay lam mu ma wax nee na ma sama waa ji matuwaay teg si nekk Gaynde Njaay monsieur Mamadou Ndaw inspecteur des domaines à la retraite mooy parrain bi laa meex de Patte d'Oie Adja may mën a yi xal mi mën a lakk daay te du gàddaay yi la battante mooy marraine ba sama yaay ji nga xamante ni nii difi bi mu ñëwee jaaxle jeex na ñu naa ko kenn du yow ci miim réew kon daal képp koo xam ne toog nga sant rek ñu ngi lay woo ci bis boobu noonu waa Patte d'Oie pare leen waa Sénégal pare leen waa international pare ndax man DJ Big pare bu yàgg kon daal rendez-vous baa ngi noonu le 24 25 décembre dina mel ni tukku sa bënn sànbaréer waaye nag la ci gën a neex ba gën ci bismillaahi mu xuus ci toobeen fuuta ba siin ba saalum jàll jolof ak kajoor dukki-dukki dugg ñoore diri Sénégal bi nuy naa leen dal leen ak jàmm ci groupe toob whatsapp tey mu saf-saf ñun ñooy toob di toobeen di seen tafsir Sadio Ko laaj ma sama cosaan dina ma ne toob di toobe am jër ca Mbàkke toob njaajar njaay di alburi njaay seedoo kuli seedoo sebbe seede baa ngi nii méng njaay wàcc fuuta toor ca war xoo jënd bi ñetti soxna samba awa faal jaxu congaan ak samba benn Mbàkke ñetti soxna yi ñoom meñ toobe kuli njaay njaajar sere njaay Mohamad Fatmata Sall di yaayam Aboubacar ibnu Umar di baayam ñu denc ko si nit Fatmata Sall lam toor Abdallah Sall ca gede mooy baayam ku ma weddi wala nga dugg barak ci ëttu Amar Fati Mborso a neex ba gën président organisation de Top Famille Internationale Ibrahima Top sama nga xam ne bëggul dara lu ñaaw ndax tey organisé ba mu rafet pare na daaw Jolof la woon waaye édition 2022 bii fii lay amee Dakar kon na ñëpp paxe ndax monsieur Ibrahima Top initiateur de Top Famille Internationale pare na waaye Mame Mariama Top secrétaire général pare na kon na ñëpp pare nee naa la première édition bi c'était à Thiarène ca Fouta deuxième édition bi war xoox ca Jolof waaye troisième édition 2022 bii fii lay amee à Dakar ca Patte d'Oie sant Toob ku sa baay Toob ku sa yaay Toob ku maam jur Toobeen képp ku sant Toob ndaw Fejoor Kobor Mbergaan Congaan Wilaan am nga ci cër ndax ndawe yi saareen yi ak mbàkk-mbàkk yi ñu ngi ñuy xool ñoom ñii ñooy suñu kal kon na ñëpp paxe waa Patte d'Oie paxe leen waa Sénégal paxe leen waa Italie Espagne France bàyyi wuñ kenn waa Jolof waa Kaolack waa Ziguinchor bàyyi wuñ na ñëpp pexe ndax man DJ Big pare naa. mbokka mën nga kóol ca Gambia suñu sëriñ bu ñaawul boobu nga xam ne mooy suñu président d'honneur di suñu ostas mooy kan Abdoulaye Top ak professeur Ban Ndaw ca France wala président Alassane Top ca France maam Mariama Top ca Koungheul di secrétaire bi jaarama Aji Awa Baga Top jigéen ju ñaawul jooju Matar Top mooy chargé de communication ba kàcc galama Ibrahima Top béy ci caareen Fuuta nekk fële ca Congo moom mi sos groupe WhatsApp bii feggoo ak Abdoulaye Top ca mbokk alalu yàlla la yàlla nee na ku dog mbokk ma dog waaye troisième édition 2022 bii fii lay amee à Dakar ca Padoa kon daal na ñëpp ñëw bu ko kenn taxdi na ñëpp ñëw ñu àndandoo dundandoo cay loolu cay loolu kon ba jour ba